<laughs> loolu mu leer problème xalifa amul benn problème loolu mu leer yeewu tey la fi gën a nekk <laughs> heure bu Ousmane Sonko wootee ñu ngi taxaw Habib si di ko doxal ci ngor politique yi ci ngor ak ci jom ak ci fit déglu rek man bu ruubee wax ji man li may wax dafa leer ndax dafa leer sama bopp yaa ngi dégg ñi ci minoriser génne leen ci nga xam ni nii sénégalais yi ñoo leen ci génne mais bu leen ci leader yi buggee dugal dañ leen ci génne parce que ñun yeewi moomu ñu ñu ah man li ma daj pour pour pour Macky Sall jóg fi bari na ñu nekk yeewi daju ñu ko fa yaa ngi dégg te kenn joxuma ci dërëm nañ waxante dëgg Khalifa Sall amatul place yi nañ ko dàq parce que dafa trahir pacte bi ñu signé woon loolu mooy dëgg yaa ngi dëgg dafa trahir man loolu laa gëm nit ku trahir nañ la dàq politique boobu moo fi war a am léegi ñun politique bi dafa war a changer waratuñoo nekk ci affaire copain copinage Sénégal moo fi nekk ñun Sonko ànduñoo moom nax naxante de daf ñoo jaay projet ñu gëm ni projet bi daf koy exercer ñu ñëw taxaw ci wetam man bi may xam Sonko am naa ñaari soxna yaa ngi dégg am dépense yaa ngi dégg bëgg ñetteel damaa bëgg rek mu leer ànduñoo nit pour naxante Khalifa Sall dafa war nañ ko dàq man loolu laa gëm loolu mënul nekk de yow yaa waraate wala yow yaa xam luy war ñoom waruñu toog na fi wax ko te kenn gënu koo sonn ci xeex bi Dambodj lan la représente Sénégal qu'est-ce que Dambodj représente dans ce pays maître Moussa Diop Khalifa Sall la ko génne kon ko loolu mooy dëgg suñu liste bi ba léegi leerul kon nañ ko génne yeew yi continuer di dund Habib Sy ma nga fa di ko doxal normal seen leader Ousmane ah. moo taxaw setal setal Khalifa Khalifa Sall ah, waaw xoolal Ousmane du yonent nit la ah. mais Ousmane kaamil wax la xamal lu tax mu def noonu dama lay wax billaahi boo indee kaamil li may wax ni sax sax waruma ko wax parce que kenn du wax ak kilifa di ko waxaat jour boobu man mii dama wax wax ak Ousmane xamal lu ma wax ñaari mbir moo fi nekk buñ dóor li xew dëgg buñ ko waxee coalition bi tas barke Cheikhou bu dee waxuma ko yàlla bu ma ñibbi sama kër li xew ko waxee coalition bi tas <laughs> kon nañ ko gérer parce que Ousmane leader la da koy gérer mais ñun loolu xam nañ luus luus bi ci am ñu fee nekk di ko wax yaa ngi dégg mais leerul ci bopp benn sénégalais bu conscient Khalifa Sall moom am na problème ak ak bi intellectuel yi nga xam ne kenn moom li mu li mu junj ah xoolal déglu ma yow xam nga ni Mamadou kilifa la du wax dans wàllu rek moom moom lu ah, la may ma tuuti la réponse que Moussa Taye a donné ça suffit largement waxi Mamadou Lamine Diallo leer nañ Khalifa n'a aucune responsabilité gis nga ci disqualification liste bi Pape Sagna waaw loolu moom waxi gis nga Mamadou Lamine Diallo xam bokkuñu kan wàllu la ne mais xam nga ni ñi gën a cohérent mais moom day ràññi déglul dafay ràññi ah, man maay wax comme yeneen yi ah, waaw may ma kàddu comme yeneen may ma kàddu li ma bëgg a wax xam na ko moo tax du déglu déglu tuuti hmm. Mamadou Lamine Diallo moo gën a cohérent ci Sénégal xam ma man ànduma ak moom bokk na ci ñi gën a cohérent lu mu wax dëgg la tey ba mu ko waxee laa leen ni xoola mbir mi am na lu ci louche yaa ngi dégg gis nga yeew yi du affaire du affaire parti hmm. ñi ko porté dëgg-dëgg c'est duñu ay politicien man naa citeel naa la fi Dame yaa ngi dégg citeel naa la fi Clédor ku mel ni Cheikh Omar Diagne ñooñu amul ñu dajul ci kombaa bi te nekkuñu député tey te Khalifa Sall moo leen ko xañ loolu mooy dëgg ñu jox ko suñu list bi kenn xamul lu mu ci def waaye yooyu yëpp ñun mën nañ koo régler gis nga ñu mhm. yeeyu ña ne moomu ñu de mhm. dañoo ànd ak ñoom ci ngor ak Sénégal Khalifa Sall day wax ak mag sàll na dem bokki Benno Bokk Yaakaar mhm. yaa ngi dégg ñun ba bu dee mairie Dakar ci kanam la suñ kanam la nekk yaa ngi dégg ñun duñ dul nangu trahison façon politique boobu daf war a jeex nañ ànd ci ngor bu ñu jël nguur gi ñu jël ko ci ngor bu ñu koy ñàkk ñu ñàkk ko ci ngor yaa ngi dégg dem ngeen ci dialogue bi indil leen ñu dara léegi nag suba xam nga suba jeudi la suba lay leer ba xam trahison bi suba lay leer parce que suba am na am na ay code maam code électoral bi suba lañ ko war a woote xam nga bu fekkee ne Khalifa Sall woote na ko nag dina dëggal lii may wax nii bu dee waa taxawu ñëw woote nañ loolu mooy dëggal nañ trahison bi. daañu voté lan. dinañ voté mooy Sonko dootul ah bàyyil bu ma paree déglu rek bu ngeen ko wootee mooy dëggal ngeen dëggal ah. bi ah, ah, euh, dégg nga dégg nga li ma wax d' accord les points d' nga euh, kii bi la nu nu mu moom suba ak parrainage mooy jàll moom moo jàll commission technique mooy jàll plénière demain. bu fekkee ni woote nañ ko bu fekkee ni woote ma daaneel man maa yor kàddu gi li ma wax dama bëgg sénégalais yi laay waxal parce que man xam naa ni avec modestie sénégalais yi xam nañ waxuma pour nax leen parce que yàgg naa fee toog te musuma leen a nax li ma gëm mooy suba bis bu historique la ci histoire Sénégal mm. liñ bëgg a woote mooy nan la ñuy fexee ba Sonko isolé ko du bokk lañ waxante woon ca dialogue Sonko mu isolé di nga noppi xanaa di ma jël ma daaneel waaw bàyyil ma daaneel ma bàyyil ma daaneel ma daaneel ma daaneel nga jël ah, dama bëgg moom dafa ne Sonko mu leeral ko déedéet man maa yor kàddu gi bàyyil après moom mu leeral ko bàyyil dama bëgg a wax ni suba journée bu historique la Sénégalais yëpp nañ ubbi seen bët xool lay xew Assemblée nationale mooy am na ay loi yu ñu dëxëñ yiñ ci loi yi daal pour tekki ko ci wolof mooy Khalifa Sall miñ ni escroquerie la moom dina bokk. yaa ngi dégg. Khalifa Sall kenn topp ko. yaa ngi dégg escroquerie. grand parti ko confirmé Karim Wade ay magistrats na 157 milliards xaw ma 100 100 lan milliards écriture la ñu ay milliards yu bari. voilà nee moom dina bokk. Sonko mi ni liggéey na ci administration pendant 15 ans mës jël alalu kenn yaa ngi dégg wax ko. ñoom nee nañ dinañ defi pexe suba ba woote loi boo xam du jàll. ba nga li lay wax ci seen manipulation yi. léegi nag dafa yéen a ngi noonu histoire a ngi noonu. Mm-hmm. mon frère. <laughs> il faut combat bi wu caaxaan. ay bakkan ñoo ci rot. Mm-hmm. lépp lu ngeen ciy def. na ci seen conscience tranquille jërëjëf fi xun xunee lépp lu ngeen fi def dinañ ko bind ñu ni ko def. war ngeen Ousmane Sonko war ngeen réew mi man loolu laa gëm ba koroog le contraire. jërëjëf waaw da <laughs> ngeen a war réew li ma li ma rek Pape Mara waaw responsabilité assumé